asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw ginnaaw mbokk yi bu ñu jugee ci suñu yeneen mbokk taalibe yi ñu jugee doon def benn reportage tey ñoo ngi fii ci suñu benn mbokk bu ñu naan Serigne Fallou Gueye eh, nekk Sénégal dëkk dëkk Sénégal dëkk fu ñu naan dakaar nekk fii ci Touba Cordoba sëñ Fallou ñu ngi lay gear xanaa di la jox kàddu gi rek nga présenté sa bopp. waaw sëñ maa ngi ziar bu baax di nuyu ñëpp ziar ñëpp waaw. waaw sëñ Fallou ginnaaw bi ñu la nuyoo ba pare di la dalal fii ci émission Modou Modou yi ñu amal ko fii tey ci Touba Cordoba ànd koog seen chaîne Touba Argentine TV sëñ Fallou ban jamono nga ñëw ci dëkk bi. waaw maa ngi fi ñëw jamonoy 2011 bi ñu 2012 bi nit ñi di jaar ci keto ak yoonu boulevard bi daal ci laay ñëw jamono yooyu laa fi ñëw. maa ngi wàccoon Buenos Aires def euh, ab diir mu fa jógee ci laa nekk ci feria yi di dem ci feria yi di dellu Buenos Aires comme ni ko ñëpp di defee di jaay mi nekk ci jaay mi après jamono joo jamono yi 2014 laa ñëw Cordoba laa ñëw ba waaw sëñ Fallou foofu bëgg nañ fi ñëw ak euh, yow ci benn question yan jafe-jafe nga dund ci yoon boobu noonu nga jaar bi ngay jóge Sénégal. waaw xanaa defoo vol direct. waaw bi may ñëw jógee Sénégal aw ma woon visa Argentine direct damaa wàccoon Quito may ñëw kito Ecuador ci capital bi lañu wàccoon kito ñëwoon fa benn festival àndoon fa ak benn artiste tudd Assane Thiam moo ñu indi woon foofu mais moom it boobu la fa njëkk a ñëw bi ñu ñëwee ñu def fa plus de quinze jours après ci festival bi jeexee festival bi festival bi jeexee. ci la ñu teg ci yoon moom xamul woon sax mais dafa dëppaat dem Sénégal ci la ñu teg ci yoon ñun ñu woote Sénégal ñu yónnee ñu xaalis ñu jaar ci yoon bi dugg Pérou Lima nekk fa jaar fa romb fa dem Bolivie La Paz nekk fa dund lu mett ba door a egg jaar nañ yoon bi def nañ ci plus de un mois waaw door a dugg Argentine. waaw sëñ Fallou wax nga ñëw fi nga jaar ci yoon bi méttiwaay bi yoonu suuf la woon ba nga agsi euh, biir Argentine euh, sëñ Fallou nan nga def ba agsi biir Cordoba capital. Cordoba capital nag moom yaakaar naa ne lu yàlla dogal rek parce que ñëw ma woon direct Cordoba ba ñëw nekk naa Argentine lu yàgg te dégguma sax tur bi daaw ma ko bàyyi xel bokk Argentine Buenos Aires laa nekkoon di lal ci cachet bi di jaay mais dama daan dem Feria di jóge fria politique ñëwaat Buenos Aires bi ma ñëwee bi ñu demee benn feet bu ñu tuddoon Saladiso ñu dem Saladiso Saladiso jeex foofu lañ ñu waxee ni ñu am na benn fête bu am Carlos xamuñu Carlos Paz ñu ne ñu dañuy jël auto dem ba Córdoba capitale boo leen demee Córdoba ba ngeen di jëlee oto dem Carlos bi ñu ñëwee fii ñu wàcc fi guddi laajte benn Sénégalais ñëw nañu Carlos Paz la jóge mais foofu amul feet feet bi fa am feetu artisanal la te ñun mënuñu fàllal juste ma àndoon ak sama ñaari nit ñu ma àndaloon amuñu woon paas bu ñu delloo Buenos Aires jamono jooju amuñu woon paas yoruñu dara tabaski jub si na ci la ñu nekk foofu ba gis benn mbokk taalibe mu jox ñu 500 pesos Mbàkke la tudd benn waay ñoo nekkandoo woon ci feer yi bu ñu joxee xaalis boobu ci la ñu reer après tëdd ci terminal bi la ñu fanaan jour boobu waaw ci ëllëg sa ñu yendu ci terminal bi ba guddi ñu génn ak suñuy bagage di ambulant ci dëkk bi di dem ci dëkk bi di ambulant li ñu joto am bi ñu ñëwee juste mu tombeek semaine tabaski xaalis bi ñu jaay ñun ñëpp ci lañu dugal depaasu tabaski di seetuñu dara ñu nekk ci loolu nekk ci loolu mu jig ñu dem hôtel di fa dal di xëy di jaay di jaay ba gis boobu sax sénégalais sax gis ko fii ci ci corde bi jafe woon na parce que jamono jooju bi ñuy door wàcc Pape Sala la ñu fekkoon kase ci palaasam fële mu lal ci palaasam mook soxnaam moom dong lañ doon gis après ci la ñuy door a gis terminal ba ña fay lal ak yooyu ñu ne ñu nag fii moom waaw kenn du fi lal ak yooyu. benn bis ñu benn suba xëy di ambulant ba ñëw ci kase bii nga xam ne fi laa nekk léegi nii bi ñu ñëwee nag di jaay di ambulant xente bi wër ñu nag. nit ñi wër ñu ñuy jaay lu bari macha allah ci lañ nag nañ lal fii toog fi faral ñu lal di fa jaay di fa jaay ay fan municipal bi fekk ñu fa yóbbu suñuy bagage wax ñu ni maanaam fii kenn du fi lal ñu nekk ci lool lu yàgg nag lu yàgg dund ci lu metti xeex ak municipal bi coow yóbbu nañ ñu police denc ñu fa ji bàyyi waat ñu ñuy metti ba mujj gi daal ñu xamal ñu fii mënatuñu fee lal wàcceel ñu ay semaine ak chaque jour ñu taxaw lu métti lañ fi daj lu mete métti. waaw sëñ Fallou wax nga jaar jaar yi nga jaar fii ci Touba ba ni nga def ba agsi fi jafe-jafe yi nga fi dund euh, mu mel ni tey lu bari jàll na ci ci loolu muy page boo xamante ni tourné nga ko. Euh, waaw lan nga ñu mën a wax ci ci ci jafe-jafe yi nga xam ne dund nga ko ci mbedd mi eh, ak lan nga ciy wax ñi nga xamante ni actuellement ñoo ci nekk eh, di ci di ci ambulant ci daj ay jafe-jafe donc tey yàlla suturaal na la eh, yaa ngi ci yaa ngi ci bërëb di fa yëngu yan jafe-jafe yi nga xamante moo gën a métti yoo xam ne dund nga ko ci jamono jooju. waa jamono jooju noonu bi ma ci mujjee dundoon mooy bi gënoon a métti ci man boo xamante si ni damaa waaj bay dem Sénégal di ñibbi mu nga xamante si ni. trois jours a des pour ma ñibbi municipal bi ñëw jël bagage yi ma yor en plus jëlaale sama xaalis trent mille yoo xamante si nii daanaka li ko manqué un million CFA bariwul nangu ko ci man te delloowuñu ko loolu daal bokk na ma ci li ma gënoon a naqar yi waaw waaw loolu moom moo ma ci gënoon a naqar yi jël samay bagage période bi ma xam ne ci laa war a ñibbi waaw waaw sëñ Fallou bu ñu xoolee sa ginnaaw gis nañ fi benn euh, photo boo xamante ni euh, jamono jooju yaa ngi ci yaa ngi ci mbedd mi di di di ko ñàkkante ak municipal bi. waa jamono jii la jamono jii la jamono ji maa ngi lal ci mbedd mi ci cachet bi laa doon jaayee nii teg saag yi teg bisetera yeeg yëpp mi ngi nii mu nekkoon loo xamante si nii nag waaw dafa may fàttali lu bari nag wax dëgg yàlla fii bi ma fi nekkee daan sant nag bu baax aw ma woon benn jafe-jafe wax dëgg yàlla bu municipal bi waaw mais nag. après ci yooyu jàll dem naa Sénégal bi ma ñëwee laay door a nekkaat fii nag. waaw kon sëñ Fallou kon maanaam bu fekkee dégg nañu wax ji day mel ni maanaam xëcc bu daggul. dikk kon loolu loolu loolu moo fi nekk kon suñu borom mi ngi lay suturaal ba nga nekk ci bërëb ak jafe-jafe yi nga ci yi nga fi jaar yëpp kon loolu ab soññe la ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mbedd mi di ci ambulant te xam ne lu lu mu yàgg-yàgg rek maanaam lépp dina changé euh, bés bi lu mu tàng-tàng bu bu jant bi sooyee rek mu sedd lan nañ ma ko wax may maire bi may nekk ci kase bi bu ñu ma fekk buñ ñu fekkee foofu ni ñu dem leen ngeen wuti place ñun dañ doon maire dañ doon ñii ñiy wax li dañoo soxor mais bu démb doon tey li ma ñàkk ci mbedd mi lépp lépp lépp def naa ko ci place toog ci kantaaka nag dara yombul dara yombul place metti na mbedd mi metti na trop place it metti na mais place ëpp sutura place ëpp sutura xam na ñi koy ñi ci nekk xam nañ ko sutura a ngi ci joo xamante si ni yàlla rek ko ci def te nit ñi jàmm bi moom sababu la commencé rek la am waaw mu koy commencé metti na trop nag waaye nag sant yàlla bu baax waaw sëñ Fallou maam question bi ci topp mooy lan ngay wax waa Sénégal yi nga xamante ni wala jeunes yi nga xamante ni ñu ngi Sénégal te seen xel yëpp dañ ko def ci tukki e, jàpp nañ ne ñoom fii moom boo ñëwee rek daanaka tekki nga e, yow xëy na am nga loo dund fii lu metti xëy na di nga leen ci baaxe wala nga jox leen ay conseil yoo xamante ni kenn ku ne métier ba mu yor mën na ko fonk ba yàlla di def leneen. waa dëgg la Sénégal moom métti na trop métti na trop jeunes yëpp bëgg nañoo ñëw tukki man de ba may jugee Sénégal di ñëw Argentine la ma doon am ñëw naa fi toog fi plus de un an mënuma ko am ndax boobu maa ngi doon maa ngi doon port di def transit sama papa yóbbu ma ci wetam may liggéey di am xaalis aw ma benn problème ba tukki ñëw rek ma tukki bëggoon tukki rek génn tukki moo ma taxoon a ñëw metti na nag metti na fii trop ma leen di wax ni ñoom ku ci am liggéey bu baax bu la mën a jural dara toog fa nga liggéey parce que fii ñëwoo rek tekki da ngay daj lu metti door a am mais nag wax dëgg yàlla jamono jii moom fii ku fi nekk jàpp naa ne yaa ngi sant dëgg yàlla ñu ngi sant bu wér. waaw kon ñoo déggandoo kàddu yooyu noonu kon képp koo xamante yaa ngi Sénégal di jeune euh, sa xel nekk ci tukki te nga am ci loo jàpp na nga ko gën a fonk te xam ne fii moom ay coono ak ay méttit rek a fi nekk waaye question bi nga xamante moo ci topp mooy bu mujj bi yow lan ban appel ngay lancé gouvernement Sénégal ci taxawaay bi ñu war a taxaw immigré yi surtout fii ci Argentine. waa fii moom jàpp naa ñu dañ ñoo seetaan quoi latin bi moom dañ ñoo seetaan te yaakaar naa ne li waa Europe di def te Sénégal. ñu ñu nekk fii ñu ngi koy def waaw parce que yaakaar naa ni gars yi ñu ngi liggéey ñu ngi yónnee seen famille ñu ngi def lu nekk te loolu njariñ la ci réew ma dañ ñoo war a taxaw xool nu ñu defee ba ba ñu am ambassade foofu affaire yi gën a yomb parce que des fois fii nii nga gis ñu bari seen passeport jeex na bu yàgg te bala ñu cee jot wala ñuy gis gisoo fan yi passé nit ñi ñëw nañu jóge naa fi dem ba Buenos Aires te mënuma am passeport xam nga li ma la wax. muy méttee mett mett war nañ ñoo gestu bu baax te jàpp lañu xam ni tamit ñun ay sénégalais lañ aussi. kon message bi jàll na mm. euh, bu ñu xoolee ci sa ginnaaw am na benn soxna bu fi nekk bu ñu naan soxna Fatma di sa soxna. xëy na bi mu ñëwee ci dëkk bi yàggul noonu sax waaye dinañ ko laaj euh, lenn ci ay kàddu euh, nekkinu jigéen ñi fii ci dëkk bi maanaam nu ko dundee soxna Fatma ñu ngi lay nuyu. waaw nekkinu soxna yi fii ci dëkk bi xanaa di nga ñu ci mën a wax dara. waaw man moom yàgguma mais soxna yi ñu fi nekk wax dëgg yàlla ba ma dikkee léegi jàmm ak salaam rek laa séex ak ñoom mhm. man nag man dama xawuta bari génn mhm. moo tax daanaka bu ñuy gisantee daayira lañuy gisante mhm. mbala leneen loo xam ne daal ndajeem sëriñ bi la souvent ci loolu lañuy ñuy gisante mais ñu fi nekk ñëpp séq naa ñoom jàmm ak salaam amuñ benn xaar ma yàlla waaw soxna Fatma eh, bi nga ñëwee ci dëkk bi yàggul yow laataa ngay jóge Sénégal xëy na am na leneen lu nekkoon sa kumpa bi ngay ñëw ci dëkk bi waaye bi nga ñëwee ba agsi ak li nga doon xalaat ak li nga fi fekk ndax benn la. non non non non nekkul benn parce que nit moom dafa dafa dañ kumpa nit dafa dañ kumpa yow boo nekkee Sénégal gis moodu-moodu yi ku ci dikk nga xool comportement am da lay dañ dañ lay gëmloo loo xam ne maanaam yow soo dikkee da suñ dikkee da nga li nekk. bitim réew ak li nekk Sénégal du benn parce que ñoom ñooy def loolu bu buñ dikkee nga gis moodu moodu yi solu fii jaay taar ak ku ci nekk daal yaa ma gën a xam looloo yokk a tax nit ñi di jàpp seen xel ne Sénégal ak fii du benn te fekk ne li ñuy daj fii nii ñun suñ ko dajoon suñu suñu dëkk konoon Sénégal développé na parce que Sénégal fi mu toll nii marchand ambulant yi ñuy def fii nii Sénégal ñu ci bëri dañ koy banaliser boo nee man de marchand ambulant laay def nit ñi dañ lay ree duñu la respecté. Mhm. te pourtant boo delloo Sénégal nekk moodu moodu indi sa teraanga soo nee damay ambulant kenn du la ree mhm. waaw loolu kon donc am na benn complexe bu nekk ci diggante bi. bien sûr am na. Eh, kon soxna Fatma lan ngay conseil ñi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal jël seen xel yëpp ak seen bët yëpp teg ko ci moodu moodu. man waa man xam nga ku ci nekk moom ak sa point de vue. ku ci nekk moom ak ak li nga sentir li nga gis mais nag ñi nga xam ne ñi ngi Sénégal. am fa loo xam ne ñu ngi koy suturloo mhm. su ma sañoon ñu toog fa ndax la ngay nekkee Sénégal di fa suturloo boo ñëwee fii it même chose lay doonaat mbala coono bi day yokk balaa caag nag nga toog Sénégal jàkkaarloog sa ñëpp macha allah. waaw kon soxna Fatma mi ngi lay sant di la gërëm di sant sëñ Fall mi nga xam mooy sa borom kër cant ak ngërëm ñeel na leen di leen jox dig daje ci yeneen jataay euh, fii ci Touba ba ci seen chaîne Touba Argentine TV wasalaamaaleykum wa rahmatullah